mbokk internet yi dal leen ak jàmm yeewi askan wi nekk di waajal campagne électorale am ci élection locale yi nga xamante ni moom la ñu daal di nag jëm euh, tax na nag fu mu sol euh, ni mbir yi moom mi ngi corsé sew bu baax a baax ci nag coalition bu opposition bi di yeewi askan wi li ci euh, daal di nag wundu li nu mel bokk na ci nag manque fond bi nga xamante ni ñoom waa coalition yeewi askan wi ñàkk nañ ko ay fond Sonko tax na démb ci meeting bi ñu doon amal ñoom la Yewwi Askan Wi euh, di nag sàkku ab soutien symbolique de cinq cent francs par sénégalais euh, pour coalition mën a daal di amal campagne électorale am euh, ci nag ni mu gënee leader bu parti des patriotes africains pour le Sénégal et pour le travail l'éthique et la fraternité di Pastef Ousmane Sonko di sàkku nag ci askan wi ku ci nekk participer à hauteur de cinq cent francs CFA nga daal di koy nag cotiser ci nag sénégalais bu mu mënti doon ngir soutenir campagne campagne bu coalition Yewwi Askan Wi leader bu Pastef nekk itam candidat ca mairie bu Ziguinchor ngir ay élection locale bu janvier 2022 def annonce bi ci euh, meeting euh, des candidats bu coalition Yewwi Askan Wi ni ki bu ca Thiès ci la daal di demander à ce que sénégalais yi daal di euh, nag euh, def euh, benn participation symbolique de cinq cent francs ngir pour soutenir seeni campagne ndax nag budget la te itam xaalis la faaw nag ñu daal ci jàpp bu baax a baax ngir nag ñu daal di nag dajale benn fonds boo xamante ni mooy daal di nag permettre waa yeewi askan wi ñu mën amal seen campagne électorale ci anam bi nga xamante ni moo daal di nag gëm ndax gis nañ ne ko ci du pouvoir daanaka amuñu problème boobu leen ndax nag ñoom ci seen i kees ñu daal di nag puiser jox si nag seen i candidat ñu daal di amal nag li nga xamante ni euh, moom mooy nag euh, c'est euh, ni campagne muy ay tournée ay sonorisation yoo xamante ni nag moom nga war a daal di nag louer ay oto ak nag ay cortège yoo xam ne war nga ko def ay li nga xam ne mooy caravane yi ñu war a def nag loolee lépp nag dañu ko war daal di nag gaaw gaawantu lijjanti ndax xaalis la te itam jaruta daal di nag xepp moo tax nag moom Sonko daal di trouver nag ab astuce ngir nag laajte sénégalais neen nag ñoom bu ñu bëggee li nga xamante ni nag moom mooy daal di eh, nag amal li nga xamante ni eh, moom mooy nag changement daal di nag am eh, moo tax moom Ousmane Sonko ne nag sénégalais faaw ñu jàpp ci ndax ñoom ñi nekkee ci coalition Yewwi Askan Wi nag daanaka amuñu nag ay kees yoo xam ne wala ay poste yu leen daal di nag Euh, daal di nag jagleel moo tax il faut que rek sénégalais daal ci nag euh, jàpp euh, ngir nag campagne bu yeewi askan wi daal di nag mën a amal li nga xamante ni moom mooy ci mucc ay boobule campagne itam ñu daal di koy mën a daal di nag def ci xel wu tey ndax naka xam nañ ne campagne électorale moom ab budget la boo xamante ni nag xëy na boo nekkul nag ci li nga xamante ni moom mooy nguur wala nga am yenn ci ay post doo ko mën def te ñoom ñi ñu féete ci ñoom ñëpp daanaka nag ñu si bëri ci nag seen liggéey bopp yi nga xam ne moom la ñu daal di nag ci la ñuy daal di cotiser sax pour yenn euh, ci ay activités yi nga xamante ni nag moom la ñuy daal di euh, nag def saay su waaye nag ab campagne électorale moom diis na diis bi nga xamante ni nag il faut que rek ñu daal di si nag jàpp bu ñu sukkandikoo ci Ousmane Sonko ne nag lancé nañ plateforme bi di Kopar Express ngir képp ku ko bëgg nga daal di dem foofu daal di fay nag euh, dugal li nga xam